jërë jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 ñu leen di nuyu bu baax a baax euh, yéen sunu mbokku auditeurs yi ak sunu mbokku auditrices yi euh, ak yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci réew mi TV mbokk yi nag tey seen émission pencum réew mi dañu am benn invité ñu fàttali ne Abdou Khadre Seck moo nekk ci kàddu gi moom Mamadou Diawa jàll ci machine bi tey ñu invité Soxna Nogoy Mbuub di conseillère municipale ci mairie bu yoof Euh, mu nekk responsable politique euh, APR bokk ci cadre APR yi moom la ñu invité tey soxna Nogaye Mboup euh, ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdou Khadre maa ngi nuyu say auditeur ak auditrice di ziyaare ñëpp di màggal ñëpp di kontaan ci invitation bi ñu invité dëgg la maa ngi nekk responsable politique à Yoff conseil municipal dans la commune de Yoff et cadre de la mouvance. du président de la république son excellence Macky Sall. waaw soxna Nogaye Mboup euh, yow yaa ngi dëkk Yoff di militer euh, ci yoof Yoff moom amoon ngeen fi ay jafe-jafe yu bëree bëree bëree bëri xam naa ne ponk bu ndaw la rek ci élection euh, locale ak élection législative ba léegi seeni jafe-jafe mu ngi woy ci yow xayma boo def. waaw jafe-jafe moom. moog doomu aadama ñoo ànd waaye man fi ngay nattee jafe-jafe bi laa xamul ndaxte. ñaari élection ñu gagné leen. waaw loolu waxoon nañ ci Abdou Khadre xam naa yow da dul fàttaliku sa émission. non fàttaliku naa ko ne diggante bi dama ne est-ce que diggante bi jugaat ngeen ndax booba léegi da ngeen def. quatre appui dama doon laaj ba xam quatre appui bi yéen a ñun mosuñoo tëdd xam nga xam nga doomu aadama moom ñaar rek moo fi am liñ fi amoon 2014 ba benn responsable gagné APR gagné ñun ñoo gañe àddina di dox nag politique moo nekk loo xam ne looy gën di màgg di ëppi noonu looy gën di mage di ëppi noonu looy gën di kawe di ëppi noonu waaye teewul nag macha allah euh, li ñu gëm mooy mën nañoo daan waaye du ñu tëdd dañuy jógaat di dem te jàpp naa ne fii ak élection présidentielle yi dinañu gis ne waxuñu tëdd waaye ñu ngi daw bu baax a baax a baax. waaw mais loolu laa laaj rek xam nga élection locale da ngeen defoon euh, trois appui élection ngeen def quatre appui dama laaj ba xam feeg présidentielle xaj na ngeen ngeen relevé wu rek loolu rek la. non quatre appui rek ñun defuñu ab quatre appui. parce que en politique liñ fi liggéey ba léegi mooy le président Macky Sall mi ngi ci dëkk bi di fi jàpp di fi def te APR mënul daanoo noonu parce que bu fekkonte ne APR dafa daanoo kon bu demee législative du ñu dem. nit ñi dañuy contextualiser politique ci personnellement mais ñun politique li ñu koy def dañ koy def si bilan dañ koy def si parti dañ koy def évaluation général parce que tey am na ku mere Macky Sall votel euh, votel keneen contre Ablaye Diouf Sarr am na ku votel Ablaye Diouf Sarr contre keneen ñëw votel ko donc ce qui veut dire lu ci mën a am rek ak lu mën a xew nañu jàpp ne ñun coalition Benno Bokk Yaakaar ak fu ñu mën a toll ci suñu niveau politique dañu relever wu pour jóg di dem si kanam parce que li ñu dese dafa bari. ok euh, jërëjëf euh, soxna Nogaye euh, Mboup ñoo ngi wax sax élection présidentielle 2024 dinañu si ñëw xam naa ne ndax boobu yéen seen seen leader di président Macky Sall suñu see bokk bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom ak constitution bi mais soxna Nogaye Mboup yow nga bokk balaa ngay jàll ci loolu lan moo tax nga ne sañu see bokk. élection présidentielle 2024. lan moo tax sañu see bokk. laa lay mais non moom moo taxaw ne constitution bi moog Ismaïla Madior Fall bindee nañ ko noo xam ne kenn mënul def lu passé ñaari mandat yu tegaloo. waaw léegi bu boobaa dañuy xaar ba conseil constitutionnel dëggal seeni wax. non déposé sax lu def candidature ah loolu yëpp dañu bàyyi ba conseil constitutionnel bi yegsi ñun bu ñu ci yegsee même bu déposé wul candidature am conseil constitutionnel dina kii mën na dem wala mënul dem l' ñun bu ñu ci yeggee suñu parti ñun dinañu déposé suñu candidat. kan moo ngeen déposé. mais kooku bu ñu ci yeggee dinañ leen ko wax pourquoi ñu leen di wax tasa lu bët bët setagul. fu ne nii ñun réew mi ñu dénk feeg 2024 sunu mandat 2024 lay jeex te sunu mandat balaa muy jeex ci la ñu bëgg liggéey la ñu liggéey wax Sénégal Sénégal émergent bi ñu leen tegoon muy le PSE. yaa ngi dégg muy horizon 2035 moom lañ di ñëw présenté leen fii la ñu jëlee sa réew mi fii lañ ko si léegi nag suñu parti bii lañ leen ñaan ngeen ngeen ngeen ngeen voteel ñu ko conseil constitutionnel dinañ ko fa dugal dina valider suñu candidat ñu ñëw wax ak askan wi. xam nga yéen da ngeen a bëgg indi pëccëxoo ci réew mi. mais yow lu tax pëccëxoo. pëccëxoo kay. lan mooy pëccëxoo. mooy jéem a forcer troisième candidature. président yow bàyyi leen troisième candidature. il faut laisser ay troisième candidature ak quatrième ak cinquième ak sixième bàyyi leen loolu. duñ ko bàyyi conseil constitutionnel bi def na mandat est de cinq ans nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs de cinq ans loolu boobu tubaab la français la maanaam mbir mi juróomi at la kenn mënul def ñaari mandat wu juróomi at yi tegloo wolof lool la ko lakkar bee ñun def nañu benn mandat de cinq ans ñu ngi xaar ndax suñu candidat moom dina ñun ñun li ñu bëgg dinañ ko matal ci réew mi. toog waxtaan ak moom toog waxtaan ak suñu bopp te ñi ngi waxtaan ak askan wi te askan wi yow li ngay wax waxuñu ko. yow li ngay wax lañu wax. non man li may wax te waxaguma ak askan wi man bu mu bu ñu paree ba jox suñu mandat bii ñu àggali li ñu digge woon lu ci ëpp ñu def ko pétrole baa ngi ñëw gaz baa ngi ñëw te mu war a lokk bokk ci li nga xamante ne nii askan wi bu ñu dégloo seen bopp xool li mu war a jëmbat yi mu war a indi ci réew mi war nañu même bu Macky Sall ñëwul na seen candidat askan wi ñoo war a ñëw ne ko kay nekk suñu candidat ndax lu doon lu luñ doon xaar ci Senghor ba tey mu war a indi fruit de la richesse delloo tey jigéen dooleem delloo doom doomeel dooleem doolee éclairage publique nga xam ne dinañ ci mën a am jàng am ci not yu baax am ci euh, nit ki nit ki am am niveau bu baax mën a mën am ouverture ouverture bu baax machine wàll yi di mën a di mën a daw courant bi mën a yokk essance bi mën a wàññeeku lépp ñu di ko jële fii ci sunu biir réew da dootuñu ko jëngaate feneen kooku ka mu jaar ci ay tànkam ñëw ci ay yoxoom ba mu war a yegg si Sénégal bu dee donte boobu kese moo ko des pour mu war a ko mën a àggali war nañ koo jox président Macky Sall ne ko kaay àggali ko ndax keneen koo ko jox mu defaru boppam balaa muy defar askan wi. waa xam nga soxna na koy mbub mbirum ñaari mandat moom fi ngeen ko fekk. ndax constitution bu Sénégal yéen bi ngeen bi ñuy def révision euh, référendum bi fi ngeen fekk ñaari mandat ndax président Macky Sall même bu defutoon référendum ñaari mandat sept ans lay def te te yéen président Macky Sall waxoon na ne bii mooy nekk mille 2019 ne buñ ko falee 2019 mooy nekk ñaareelam ak mandat bu jeex. Euh, Ismaïla certainement certainement. waaw xam ngeen yéen da ngeen di génne waxi Macky Sall am yoo leen ci bàyyi def na certainement mooy xëy na la mu bind conseil constitutionnel def def référendum demandé ko conseil constitutionnel ne ko juróom-ñaari at yi nga fi ñëwee bokkul kooku dañ koy dindi du yow yaa koy dindi dafa mel ni kaamilu alxuraan da nga juddu fekk ko fi boo ñëwoon ne faatee gi dama koy wëlbati munoo fexe ba booy tari ci bisimilah ngay tàmbali. am na ñuy jël faatee bi di ko juutal ci suuf di yëkkati waaye boo bëggee sa julli mat faatee gi ci bisimilahi la tàmbalee dem jëm wàcc kon nag mbir boo fekkee na muy doxee ca noonu nii nga koy àndee la mu wax c'est clair et saxañ sa sañaxal nañ ko ci ay laaj bëmëx nañ ko ci ay laaj mu wax lu leer li mu wax c'est très clair nee na man kenn du ma gis ci yenn yi certainement certainement nag loolu mooy xëy na ña ngi ci xëy na gi ñi ngi xaar ñi ngi ci xëy na gi ñi ngi xaar buñ ci excès bu leen yàkkamti mais pour le moment fii réew mi toll am nañu leneen heure bi may wax ak yow ña ngay def some nu mu tudd euh, de de de. de l' agriculture souveraineté alimentaire souveraineté alimentaire loolu moo ëpp solo man. ci lu ñu war a waxtaan non bu ma ne non man man man man li xew ci réew mi te muy priorité lay wax. réew mi yow yow Abdou Khadre sa compagnie gi ñoo bëgg mu <laughs> mu cëppaxloo wala mu tas waaye gis nga réew mi kenn du ko tas <laughs> sommet bi ah, ñaata ambassadeur ñaata président ñoo ñëw ci réew mi dugg fi ñuy waxtaane sunum réew non dama ne ñuy waxtaane sunum réew souveraineté alimentaire àddina yëpp jaaxle ba ñëw ak Sénégal di ko fi waxtaane ngeen waroon jël plébiscité loolu tey ñu waxtaanee ko ngeen mën ci gëstu xool la yan dividende lañ ci am lan la ñu war a mën a jural ban impact lay am ci biir ci ci ci ci ci Sénégalais yi ngeen bëgguñu imposé pour ñu ñëw ci seen information bi ngeen bëgg a am boo xam ne erroné kenn mënu ci wax. d'accord non non non xam nga soxna koy bu dee am na ñenn ñu bëgg a dugal Sénégal ci kaaw mooy yéen waa Benno Bokk Yaakaar. yéen opposition bi yow Abdou Khadre ak yow ak say mbokk ak ñi yaakaar nii réew mi dafa war a dugg ci pëtax bi noonu la war a duggee mais ñun Benno Bokk Yaakaar ci jàmm la ñuy dox. ci salaam la ñuy dox. ci xoolal parce que réew mi ñu dénk ak dénkaane la te dénkaane nag yàgg yàgg yàgg yàgg tey suba ginnaaw suba dañ fiy dem. kon ñun do du ñu bo du ñu nangu du ñu nangu ñu ne ñun dañuy dugal ci gudde ñu di ko nangu. xam nga ne liñ mayoon Ablaye Wade liñ nanguwul doon Ablaye Wade duñ ko nangul président ak Sall. waaye ñun dañ leen ko laajul sax. da ngeen forcé dañ leen laajul yow yow li ngay lan ñu la askan wi mais askan wi askan wi waxul yónni wu yow askan wi yónni la. <laughs> mais soxna Ngoye yéen est-ce que yëg ngeen yee am na réew yoo xam ne li ko taal mooy mbirum troisième candidature ak forcer ab constitution. waaw ñun ça dépend ci réew ma mais réew mi loolu du ko taal réew mi askan wi ña ngi na cocc toog di xaar souveraineté alimentaire pétrole dugg sécurité dugg nu mu tudd économie bi yéeg ñi ngi dong ñi ngi dem ci quatre ñi ngi dem ci sept foofu la ñu toll suñuy doom jàngi stabilité suñuy sëriñ mën a def seeni seeni màggal. seeni i gàmmu seen i seen i conférence proximité boobu ñu am nga xam ne ñu ngi ko am ak ak ak ak euh, way jàngu yi loolu la sunu réew soxla ah, ñun Mali moo nu gën a jege askanu Mali xam nañu gis nañu ci ñeenti nit pour seen ay problème personnel ñu déclenché guerre gis nañu fu mu jëm ñu ngi ca bëgg a génn mu tëleen Guinée gis nañu pour pour seen i vis seen i i seen i seen i bëgg-bëgg ñu imposer loo ne mënul nekk. mais yéen noonu ngeen def noonu. bëgg a imposer lu bëgg a nekk. non non yéen yi yéen bëgg ñun ñu imposer mais ñun ñoo imposer wul kenn xam nga ñun ku ñu jox rendez vous. waaw 2024 lañ joxe rendez vous. boobu ba tey yéen a ngi ñuy gësam mais duñ ah, ñu leen wax c'est clair euh, on a un agenda très clair. na ko yéen yéen waa Benno Bokk Yaakaar ak président Macky Sall yéen da ngeen yéen yéen a ngi wax ne euh, da ngeen a jàpp ne su ngeen taxawee ne da ngeen di def beneenu jéem a def beneenu mandat da ngeen yaakaar ne daal maanaam dara mënu leen cee fekk. wala yéen da ngeen a jàpp ne da ngeen dem déposé tranquillement Sénégalais yi ne leen acce leen nañ leen dem élection. question bi ngay wax dafa amul benn sens pour man ñun waxuñu dara ñun li ñuy wax sa clair et ñun li ñuy wax mooy en 2024 la ñuy joxe sunu. waaw delloo sunu mandat. ñëw taxaw waxaat ak askan wi ne leen kii mooy sunu candidat. ñun askan wi ñu ngi dagaan seen baat. d' soo gisee fu mu nekk nii. on a on a on a créé. soo ko yombalee noonu d' accord noonu la fii réew mi réew mi doxoo fenn ba gis fa ay ñëpp ngi ci jàmm. waaw d' ku nekk yaa ngi vaqué ci sa ay si si sa ay euh, nu mu tudd nu mu tudd si say say say. Euh, sa yite d' accord mais aujourd'hui gis nga opinion publique Abdou Khadre Seck fi nga jóge ba fii amuloo benn problème kon dëkk bi mi ngi en paix. pour le moment. waa mais yàlla na sax. mais su fekkee dañ ko bëgg a taal ci rajo bu ndaw bii nga yor ngay wax may wax ñu déclenché merloo ay nit te fekk na war a ñun ñaar kese ñooy wax te waxuñu jàmm réew mi ñu ngi tooñ askan wi. non jàmmi réew mi dafa am fu mu commencé jàmmi réew mi fi mu commencé. Mm. mooy lépp loo xam ne jàpp nga ne mën naa indi mën naa andim réew. ci ci kaaw wala leneen leneen nga moytu ko limal ma ñaar. non limal ma ñaar rek laa xam. a nga dama la jox dama la bëgg wax na la. 2011 dama ne la nawetu daaw bi fi la fekk. Ah. néeg yi seen xàmmee nañ ko. 2011 président Macky Sall dafa yoroon ak maire gàddu. doon dem place de doon xeex troisième candidature Ablaye Wade. mais bañ ko bañ ko ne dem leen ngeen wut wuti baatu askan wi xam ne askan wi ñooy fal dem na wuti baatu askan wi te constitution bi jox na dëgg ka doon laaj euh, troisième mandat am waaye population bi jóg na ne ko ñun duñ la ko jox ñu mu ñëw ñu jox ko ko moom ci anam bu sedd lu tax mënuñoo def noonu ba Cheikh Sidi Muxtaar waxeertu yàlla yàlla yokk leeram ne képp ku bëgg réew mi ci yar nga koy amee ak teggi jóg leen ngeen doxi gisatoo ko mu mer gàddu de dafa takk ay dàll ba mu dëgër dem wuti askan wi réew mi ku ko bëgg demal nga waxi askan wi jox leen làmp jox leen ndox jox leen di jumtukaay dugal leen ci ci sécurité am jox leen espoir bu bu ñu yaakaar ne ëllëg seen njaboot dañuy dem nañ yii as yii ponk ma la wax mooy ponk kii yor réew mi ëllëg ak ki koy yoraat moo xam Macky Sall moo xam ma Demba la moo xam ma Paate la ku mu ci mën a doon askan wi dong moo la koy jox. parce que ñun bu ñu mënuñu liggéey démocratie ba toll fii ba mën a voté ba mën a suñu ay constitution taxaw na diw yow yaay jël yow yaay gañe local nga nangu. ñu ne la diw yow yaay gañe législative bi yor maire maire dëkk nangam nga nangu ñu ñëw taxaw ñu ne bu ñu dee dem président constitution boobu baaxul loolu yabaate la nañu waxante dëgg. yabaate nag paasewul nga bëgg li la neex continuer sa dictat te na xalaatu benn nit kesa jeex na ci réew mi te li ñu fi bëgg a samp mooy ku àndul ak opposition bi léegi dañ lay saaga ndey dañ lay wax lu bon kaay ànd ak ñun ñu ànd dem loolu mooy destituer réew mi gis nga réew mi démocratie lañ ko doxalee. xam nga démocratie mooy lan mooy ku ne di wax li la xalaat wax li la neex waaye bu bis baa ñu dem vote ji que le mais yéen moom ñu bari ñoo ngi leen di tuumaal ne dañ ko yàq. mais tuuma nga wax. tuuma nag moom munuñ ci dara ku amul tuuma ci réew mi ku amul tuuma ci àdduna bii ñu ne ñëpp am nañ tuuma. mais yéen moralement. waaw soxna Nogay. waaw moralement. waaw euh, est-ce jàpp nga ne moralement waxuma la nag affaire euh, constitution ak yooyu. ndax man li ma jàpp man. Macky Sall warut a bokk ci élection yi ñëw ma xam nga laa jàpp. xam nga moralement nga wax. waa léegi dama la wax léegi moralement war naa a sax déposé. dama ne xam nga moralement nga wax. waaw démb Barthélemy Diaz ci tele bi maa ko seytaan mu ne maa waxoon ne Macky am na droit def mandat mën naa juum su ma juumee nañ ma ko jéggal di wut porte de sortie te moral nga wax de moom fan lay teg moralam te mu wax dëgg gi ba pare léegi mi ngi bëgg langaamu mën mën naa juum duma jurist te mu taxaw wax fi lu ne weng saa su ne saa yu yeewoo di wax lu ko neex tey mi ngi gis bunt bi mu jaar ndax waxoon na lu ne weng mu ne man dama juum d'accord non may ma rek xam nga gis nga doomu aadama yi buñ ñu fontoo nit ñi ñun waxuñu leen Macky Sall dana nekk candidat ak du ko nekk dama ne ñun suñu parti bu nu ca àggee nu teg suñu candidat ñoom nag ñooy wax ñooy def ñuy dindi ñoom ñëpp ñu ngi contredire seen bopp ku ci nekk yaa ngi contredire seen bopp ñu bàyyi leen ak askan wi ñun li ñu askan wi sant fal ñu ko mooy ñu liggéey ba 2024. mais mais Barth li mu waxoon. Barthélémy Dias moom moo waxoon ne référendum bi su ngeen ko voté président Macky Sall am na sañ-sañ présenté waat xam nga lu ma ko wax ci lu leer mais noonu mu ko waxee waaw dindi na ko démb waaw doo xaar dindi na ko démb waaw dindi na léegi sonn na koy ni ko Bart waxee ci beneen façon bi beneen côté bi noonu la ko Ismaïla Madior Fall waxee woon ak président Macky Sall moom tamit yow boo ci gëm ah boo ci gëm yow. man damaa gëm ne président Macky Sall ak Ismaïla Fall mi nga xam ne ñoo jël seen xalima. waaw defar defar référendum bi. jàpp naa ne seen i kàddu. vraiment moo nekkoon kàddu yoo xam ne euh, si laa gënoon am yaakaar ndax ñoom ñoo tëgg mbir mi. man damay dellu ci yàlla mu ne bu werante amee woo leen alxuraan ngeen teg werante am na ñun suñu aada suñu constitution ki ñuy atte mooy constitution. léegi man damay jël ñaar yooyu yëpp ma yóbbu ko conseil constitutionnel. su conseil constitutionnel ne Macky Sall amuloo droit teg mandat keroog laay ñi la ñuy taxaw ñun ñu seet keneen ku ñuy teg suñu candidat. d'accord bu Macky Sall bu conseil constitutionnel ne Macky Sall am nga droit def candidature du tax sax du tax sax Macky Sall moom imposé ñu day ñëw nañu may leen ma ma def nekk seen candidat ñun ñu waxtaan suñu biir seet ndax suñu bu nekkee suñu candidat suñu avantage la su nekkul suñu candidat du avantage ñu waxtaan ci suñu ndëpp biir kër. kon nag loolu yoonu mbiti bi newu ci bu boobaa ñu doog a wax ak askan wi askan wi fu mu ne nii moom bu mu ñu yàkkamti askan wi dañ ñoo sant liggéey ba vingt 2024 yéen journalistes yi nag wala ñu mel ni yow parce que nag am na sax déontologie ak ak éthique parce que ñu fi newul duma leen wax parce que am na ñoo xam ne waxi troisième mandat bi duñ ci sori ñu xaar ba conseil constitutionnel wax ñu doog ci débat mais fii ma ay wax ak yow ñun li ñu seq askan wi mooy dañ ñoo yónni yàkkamti ñu ñu war leen jox ay résolution yu positif pour luy jëmale kanam dëkk bi ci loolu lañ sant ci loolu la ñuy dox. d'accord léegi euh, soxna Nogaye Mboup euh, yow la ñu invité yow nga bokk APR euh, bokk ci cadre yu APR yi. dëkk fi nga xam ne mooy Yoff di politique foofu sànq yow yaa ngi wax askan bi askan bi sànq joxe nga exemple Ablaye maître Ablaye Wade nee nga maître Ablaye Wade dafa demoon constitution bi may ko mu présenté wu mais bi mu demee askan bi dénkuñu ko réew mi yéen tamit yéen euh, askanu Sénégal ak njëg yi ni mu yokke Sénégalais yi sonn gi ñu sonn euh, jàpp ngeen ne waxuma la président Macky mais beneen candidat bu ngeen samp sax mën naa bañ a jël deuxième. waaye sa yéene laaj laaj. non sa yéene laaj la. non dama laaj. non dama ne xam nga laaj. laaj loo xamul dañ la cay tontu waaye li nga xam nga am neneen noo ko posé ak yéen lay nuru waaye dama lay wax ne. Euh, lu ëpp cinq ans Macky Sall subventionné njëgu réew mi muy ceeb muy diwlin muy suukar muy lépp la subventionné. ba tey jii may wax ak yow essence ak gasoil sax dañ ko subventionné soo demee boo doon kuy tukki nga dem yeneen dëkk di nga xam litre essence la mu fay jar. litre gasoil wàlla mu fay. dafa yokk fan yi non déglu ma rek xam nga man boo ma laajee ba pare man xam-xam laay wax ak yow. nee naa la yokk sonal na ko it. yokk dafa waroon a dafa waroon a gën a mën a yokk. waaye dañ ko wàññi. mais yokk na. waaye dama ne soo demoon beneen dëkk dinga xam ne ñun suñuy suñu ay prix yi ñu fi def ci gannaaw metti gi mu metti ci man ndax man mii di wax ak yow ndey laa borom kër laa damay jënd saako ceeb mu metti trop vingt trois mille cinq cent mbaa vingt cinq mille euros damay jënd dëwlin. mu yokk biteelu dëwlin vingt trois mille wala vingt quatre mille te daan naa ko jëndee dix huit mille mu metti lool. damay jënd suukar six cent cinquante wala sept cent janvier sax da ngay wër suukar sax far doo ko am parce que jaaykat dañ ko nëbb ndax dañoo bañ wàññi suukar si président Macky Sall fii la woote woo association des consommateurs yépp ak commerçant yi waxtaan ak ñoom ci biir palais te boobu sampagul sax premier ministre am. mu wane ne moom lii yéenam la ba premier ministre bu ñëwee sax du moom moo indi loolu waaye moom moo joxe feuille de ne wàññi leen location bi wàññi leen ceeb bi nanu wàññi jël diwlin bi nanu wàññi nanu wàññi nanu wàññi. am na am na commerçant yoo xam ne tey lañ leen sant lépp defuñu ko keroog la ñu gën a yokk prix yi te dama jàpp ne am réew buñ ko bokkee ñu génn ci deux ans wu Covid 19. réew yi mag nërmeelu ci yu mag a mag a mag muy Amérique muy France. muy Chine muy yeneen di dëkk ñu nërmeelu ñun Sénégal gu tuuti gi ñu mën cee jël deuxième au niveau international jël ci premier au niveau national fii ci ci ci ci ci ci ci Afrique bi kon tey ñun ñoo waroon sax ci suñu biir doxal yërmande ndax nii ñu relever ba ñu mën a yem ak yow ñu toog di wax sans masque ñu ñu mën a toog di wax jegante suñu ay lor di laalante kon jàpp naa ne boobu réew su fekkente ne dañu ne. njëg yi métti na. waaw waaw métti na. lépp yokk président soo ko gënee mën a wàññi soo gënee mënee wut ku ñu dimbali ba subvention mën a am loolu dana bokk ci sa bilan social ndax defoon nga ko métti woon na gën naa métti waaye dafa ndànk dañ ko koy ñaan parce que loolu moo ñu war ñu ñaan askan wi seen dund mën a yomb. te seen dund ñoom ñoom ñi nga xam ne nag ñoo yore réew mi seen dund moom. Euh, fa la beneen bi mooy bu ngeen bëggoon a wàññi subvention yàlla yàgg na ak fa la gis nga àdduna tabarkàlla yàgg na ci àddina <laughs> waaye bu tabarkàlla ak dañ leen mais réew bu ko dénkee aussi ngeen ay institution budgétivore yi fi nekk conseil économique social environnemental ACCT ngeen mënoon koo dindi tas ko jël milliards yooyu dugal ko ci askan bi loolu ngeen waroon def mais fi mu ne nii askan bi dañoo sonn te yéen sax 2000 yéen 2023 da ngeen waxoon année sociale mais année social boo xam ne lépp a cher ci marché bi xalangu daju suuf te dañ ne la bi dañ ne année deux mille vingt trois yaa ngi doog a tàmbali sa janvier. année sociale bu commencé yokk. dama ni dama ni dama ne at. doo tàmbali dem ba ci digg bi rek. nga projeté nangam ne projet bi échec na. projet boo ko tàmbalee da ngay dem ba à fin terme. maanaam ñun de deux mille vingt trois la ñu wax bu du 31 décembre deux mille vingt trois jotee bu dara soppeekuwul bu boobaa ñu ne. yéen ñu waxoon nangam ci 2023 dara amu ci boobu suñuy ñëw ci janvier ak février wax ak waa 2024 dinañu wax leen ñu seen année bi li ngeen ñu def waaye comme ñu ngi tàmbali te ñu ngi wut ay résolution ci situation yi bari eh, cin bu naree neex bàyyi xeeñ waaye bërki moo tax ñu ngi ci cin bu naree neex bàyyi xeeñ du 25 au 27 am préoccupation euh, nu mu tudd nit ñi moo tax ñu jël sommet bu rëy bii defee ko fii ci réew mi moo tax ma bëgg ñu waxtaane sommet bi ñu ñaan sommet bi jeex ñu seet lan moo ci dividende yi te maa ngi lay ñaan en tant que euh, nit ko yor rajo nga fexe di fa dem yónnee fa sa ay antenne pour xam lañ fay wax nga mën ko jottali xam nañ lañ fay wax mën askan wi parce que askan wi Sénégal yi nekk askan wi askan bi xiif bi nekkee coono bi loolu waral sommet ak ah, loolu moo loolu moo waral some bi sommet bi dañuy ñëw faj si xiif waxtaane xiif waxtaane ni ñu amee souveraineté maa xam nga mooy souveraineté maanaam naka la ñu mënee ñun ci sunu moom suñu bopp ci li ñuy dundee loolu nag ndagam dañ ko def sommet bu rëy ba àddina dem demewuñu ñu beneen dëkk di ko waxtaane da ngay indi lan mooy quintessence wu sommet bi bu fa jeexee nag ñu seet yan jeexital la am ñu di ko waxtaane nag kon ñun projet bi ñu jox sénégalais yi projet bu wóor te leer la te ñu ngi koy dox. xam nga soxna na ko yéen euh, yéen souveraineté alimentaire ba ngeen ko waxee dafa yàgg mais munu leen a dem ba benn at moins de benn at dese leen ngeen bëgg ñoo gëmloo souveraineté alimentaire quand même. xam nga wolof dafay wax ne dund lu yàgg dafay tax nga mën a jéggalu ci lu bari defarwaat lu bari kon ñi ngi ñaan sunu dund gi ñu agsi fii bay war a dugg si 2023 yàlla dund gi gën a rafet parce que dund bu rafet nag ndax nee nañu dinga nga gis waaye yàlla buy def lu bon di def lu bon ba benn bis mu def benn lu baax sama borom du yóbbu ko àjjana ci jëfam ju baax jooja kon ci ñu jëf gi ñuy jëf naam nagam liñ fi def lépp ba ñu ba Macky Sall dee ñëw ñu ne ko mënoo fay salaire trois mois ba Macky Sall ñëwee fekk fi délestage ba Macky sàll ñëwee fekk fi dina dund mu yokk ba Macky sàll ñëwee fekk fi euh, gone yu liggéeyul ba Macky Sall ñëwee fekk fi amuñu bourse familiale ba Macky Sall ñëwee fekk fi diaspora bi ne ko ñun doonoo sonn ndagam dañoo tukki woon amuñu lu ñu yor Macky Sall ñëw indiwaat sécurité ci réew mi dolli yaakaar ñu naan pétrole bi ñëw na mu stabiliser réew mi defar jumaa yi dëkk bu nekk mu dem fa tabaxal leen jox leen loolu yëpp ndagam fàtte nañ ko dëgg la baax na alhamdulilah yow yaa ko wax waaye réew mi waxu ko waaye nañu xam ne lii ñu toog ndakaaru ndakaaru du Sénégal Sénégal nga Fuuta Sénégal nga Daara Jolof Sénégal a nga Malem Odar Sénégal a nga Saalum Sénégal a nga Casamance Sénégal a ngi feneen ak feneen ñooñu ñëpp tey foo mën a siyone muy PUDC mu jaar fa dégg nga maam tey jii boo xoolee boo xoolee boo xoolee rek. Euh, yéen monde rural bi ñoo gën yow li ma la limal yëpp di la tracé yow sa xol bi sax mi ngi sedd yow Abdou Khadre Seck. <laughs> yow xam nga ne sax li ma la waxal yëpp. dawul ko xam nga réew mi ñoo ko bokk buñ ko. non ñoo ko bokk mais monde rural bi ñoo a bu dee Bambey nga dëkk gëj nga fa dëkk gëj nga fa. yow bu fekkente ne Saalum nga dëkk gëj nga fa passé woo Colobane gii ngay jóge ak sa rajo bi ak di yaakaar naa ak nee na mais boo demee ci àll bi fekk yoon yi ni mu méttee woon diggante ndakaaru njaay ba jawbe ba Tambacounda nga jaati tali bi mu nooy nepp nga dugg ci eli ñu may leen ay piste. mais ku jox budget six cent nangam milliards war ngaa mën a def lool nag. waaw kon alhamdulilah rabbil alamin kon waxal ma lu ñu def. mais Abdou Khadre dama lay laaj réew mi yow gisoo dara lu fi def. dafa am fu ñu leen doon xaar. ma ndax mooy lekk naan fajo. waaye lekk ak naan kese dafa yorum réew. mais wax. am réew dafa am lu koy samp balaa ngay lekk ka naan réew dafa am ay infrastructure yu koy defar fay jëlee ji lekk bi ak naan bi kiy bayee kiy bayee mbadoxun boo amul tali yu baax la muy bay doo ko indi ci biir dëkk bi. Ah, d'accord non bu ma ne d'accord da ngay nangu dama ne infrastructure mooy source bi nga xamante ne ni mooy indi survie wu doomu aadama. mais environnement. Ah, defar ko waaw sénégalais yi maa leen gën a sonn. yow da ngaa sonn dama sonn mais ci suñu biir coono. yéen ñi nekk si nguur gi moom sonn leen. non bu ma wax ñoom si man néew ma si nguur gi man néew ma si nguur gi man duma ma ministre du directeur duma ma man nguur gi fay ñu ma la lan la laa nekkee si nguur gi mais damay sénégalais de bon teint xam ne am Macky Sall am na lu mu fi def te lu mu fi def dafay am espoir def fi rek dafay dem barke Serigne Saliou Mbacke Macky sàll dafay dem ndax li fi bàyyiwul ab Ablaye Wade bàyyi fi Abdou Diouf bàyyi fi Senghor du ko fi baax. 2004 2024. non du ñun suñu horizon la xanaa déggoo li ma la wax yow li ma déggoo ko dama ne ñun on a un programme de 2035 te bul fàtte président lay Wade def ne nee na sama démocrate bii mi ngi fi pour 50 ans wax jooju na ngeen ko téye te indiwaat kaset yi. loolu moom waxu Ablaye Wade léegi léegi. waxi Ablaye Wade dafa jëlee téye nag mag la. waaw d'accord mag mu baax mag mu liggéey ci réew mi mag mu teg projet. teg njabootam ne leen dem leen. te Macky Sall moo ab Ablaye Wade moo taxaw ne carrément képp koo xam ne ànd nga ci man dem leen ngeen jàppale Macky Sall. moo ko wax d'accord wax na ko wala waxu ko. waaw d'accord wax na ko wala waxu ko. <laughs> soxna May. non wax na ko wala waxu ko. waa non même bu ko Ablaye Wade waxee. non dama bëgg nag boo may laaj. waaw moo ko wax waaw Ablaye Wade moo ko wax mais mais Macky Sall fayul naan bi xoromam ñun sequñ ñu sequñoo benn di ko jox xorom. waaw d'accord léegi soxna Nogaye euh, yéen euh, yow jàpp nga ne askan bi euh, yéen daal good fine yow loolu nga jàpp mais man damaa jàpp ne. good ñu de good fine yu ñu de. gis nga àdduna. l'œuvre humaine n'est jamais nit ku ne looy def di nga ci juum. Macky sàll am na lu mu def lu baax waaye ñàkkul ne am na loo loo xam ne def na ko soo ko laajoon. mooy la su ma yëgoon du ma ko defee nii dama koy defaat nii. boo gisee état di dem ba yàgg mu def remaniement ña fa nekkoon nekkatuñ fa loolu dafay wane ci signe ne moom bu defee remaniement c'est parce que jàpp ne am na lu mu dénkaane lu doxul mu ne naa ko jënk neneen ñu dox. d'accord kon donc Ablaye Macky Sall mënuma taxaw fii di la wax ne kaamil la. moo gën ci ñëpp moo fi gën a rafet moo fi ëpp xam-xam moo fi nangam duma ko defal Macky Sall. d'accord man daal na la mën a. mais réew mi métti na. d'accord parce que réew mi yàlla dogal mu métti. waaw d'accord Covid deux ans. xanaa xamoo yow man Macky Sall dama bëggoon ñu dolli ko deux ans ñu bàyyi ba deux mille vingt sept ñu doog a defaat kan euh, kan ñu doog a def présidentielle. ba pare mu bokk ci. waaw ba pare mu bokk ci parce que deux ans yi bokkul gis nga deux ans yi ñu nekkoon di bokkul ci bilan bi. d' xam nga lu leen neex moom bay boo ngeen waxee. Ah, waaw mais Sénégalais yi ñoo ngi leen di déglu ah, ñoo ngi leen di xaar. depuis ferme Sénégalais yi ñu xaaree de bien ferme mooy damay sant yàlla ndax xam nga luñ ñu xaaree ñu jox leen euh, lu leer ci yar ak teggin bañ leen a topp parce que ku leen topp sax dangeen di yóbbu nit ki sax fu mu bëggul dem te ñun dañu sant. ñu dem liggéey yi. ñun lañ def ñu yërëm askan wi. ñu déggoog ñoom. ñun lan lañ xanaa di ca di yëkkati ay coow rek. di yëkkati ay coow rek saa yoo leen yeewoo yéen ngi wokk seen ay oom pour nit ñu xuloo ak nit ñi xeex. d'accord mais sànq yow soxna yaa ngi wax naan euh, Covid 19 bi xam nga yéen euh, dañuy sénégalais dañu dajale 1000 euh, milliards askan bi pour Covid 19 bi ñu xalaatoon ne da ngeen ko saafara jafe-jafe askan bi mais rapport Cour de comptes bi mu ñëwee gis nañ si ay milliards yoo xam ne njort nañu ne dañ koo luubal. ñenn ñi jàpp ne loolu vraiment mbir la moo xam ne sax mën nañ koo jàppee ak ak ak ñàkk yërmande yow euh, ba lan ma si sax sa dégg-dégg sa gis-gis. sama dégg-dégg mooy li nga wax Cour des comptes dañ ko sant liggéey kan moo ko sant la président Macky Sall maa ngi maa ngi loué euh, le fait que mu respecté askan wi ba lépp lu mu joxe woon wala boog li ñu prédiroon ci mille milliards donte dépensé wu ñu mille milliards yëpp pour votre information. am na lu luñ ci génn ñu jox ko ay nit wala ay ministère wala ay ay ay ay ay cour des comptes def na rapport am mu daal di indi jurisprudence na képp ku ñu woo indi sa pièce à conviction maanaam lii ñu ne wax ne ñun bind nga ko jox ñu ko wóoluwuñ ko nañ la ko toppal nga indil ñu fan nga ko def ak na ko defee kooku nag dañ koy delloowaat cour des comptes bu ñu joxee seen pièce à conviction ñam ca setal ñu xam ne wecc nañu ñamu ci taqal nañu fay alalu askan wi ku ci ku ko jël te tegoo ko nanga nga ko war a defee ak foo mën a bokk ak foo mën a bokk laa wax de yaa xam ci biir Macky Sall nga bokk yaa xam doomam nga yaa xam magam nga yaa xam rakkam nga da nga koy fay parce que nag mënuñu toll ci ñu ne deux ans yii bokk ci ba président Macky Sall lijjanti xaalis jox ko nit ñi si yërmande woo privé bi ne def leen ci seen alal nit ñi sax dem ba ku am sa 500 francs wala 1000 francs nga dem ñaw tailleur yi bàyyi seen lépp ñaw ay masque jox ko nit ñi yóbbul ko nit ñi jël xaalis bi jox ko joxe ko ñu yóbbu ko trésor trésor dekase jox ay nit pour ñu liggéeyal askan wi delloo leen ko dama ne ku ci indi pièce à conviction nañ la yóbbu fa ndoxe ne doone benn. même Ablaye Diouf Sarr. ku mu ci mën a doon. Ablaye Diouf Sarr Ablaye Diouf Sarr tudduñu ko ci. ministère de la santé la ñu wax ne. mais mooy Abdoulaye Diouf Sarr waaye dama ni man li may wax dafa leer man je ne pas de nom je cite les ministères dont a cité ni ko ni ko Cour des comptes waxee noonu laa koy waxee. dafa ne mi dafa ne dafa ne ministère de la santé am na 45 millions boo xam ne comptable bu Kaffrine moo ndangoogul joxe ay pièces à conviction ñu ko koy laaj. pour jur pour vérification ñu ne daaj am na ñoo xam ne dañ doon liggéey mu fay leen te boolewuñ leen ci enrôlement bi gis nañu ne chèque yëpp dem na ca ñooña mais bokkuñu ci ñu ne nañu indi ay pièces justificatives pour wane ne ñii kat liggéey nañu ci def nañ ci wala nangam nangam bu dëgg doon dëgg sax day comme que gis nañu chèque bi dem bu jóge ci Nogaye dem ci dem ci Abdou sekk Seck dañaan Abdou Khadre Seck xaalis bañ la joxoon delloo ko mbaa ñu ne Abdoulaye Khadre Seck wax ñu heure ya nga fa liggéey ak lu tax ñu def fa ak nàngam parce que demoon nañ ne ba dañu wutu woon ay volontaire kon foofa duma ci yàgg

jërëjëf euh, soxna Nogaye euh, léegi ñu wax ci fi nga xamante ni moom mooy euh, assemblée nationale yéen yéen waa Benno Bokk Yaakaar mën nañ ko tuddee noonu wala yéen waa APR maanaam jalgati loi wala jalgati yoon bi nga xam ne def ngeen ko dàq madame Aminata Touré ci assemblée nationale loolu moom lan la. non loolu moom il faut nga laaj ko député yi. parce que dégg naa ne daal ci li ma am seetaan docteur Malick Diop mu wax ko en tant que troisième vice président nee na daal ci article 60 ak 7 lañ ko teg comme quoi Aminata Touré taxaw na da dafay dem euh, député non inscrit la donc jàpp nañ ne li parti bi di wax ak moom lu muy wax du benn te parti bi moo ko yóbbu foofu peut-être ñu jël ci ay résolution à la demande du parti donc ku nekk na nga assumer say fee rek. mais li convaincre na la. oui convaincre na ma parce que as pour man assemblée am na lu am na yoo xam ne sur loi lañ koy teg bu mën ko def bu fekkante ne woon du woon yoon du jàll kon kii bi kii vote bi du jàll. waaw mais xam nga cas bi Moustapha Cissé Lo ak mbayu Ndiaye nii la demee woon te président Macky Sall bi mu faloo dafa leen a ndàmpaat na leen dàq gi ñu leen dàqoon tegewul ci yoon la Ablaye Wade defoon tey moom la Macky Sall ñoo def. waa xam nga politique nag moom dafa am ay contexte man jàpp naa ne sax peut-être kaawu May Ndiaye ak kaawu Moustapha Cissé selo duma ko contextualiser ci ci ci situation bi demee nii mais euh, ñee dañoo taxawoon di ne ku dàq diw ñu dem kii dafa ñëw ñu war a teg candidature am teguñu ko fa la problème yi démarré reste na peut-être mais dafa rester contre peut-être le le parti xam nga nag parti moom dafa ñoom ñoo xam seen biir li ñuy waxtaanee seen biir ba tax ñu jël solution résolution bi sax man sincèrement j'étais pas j'étais pas dans ces parce que dafa am dafa am ku nekk seen niveau foo toll am na niveau niveau seen niveau présidentiel wala niveau des des ministres fa ñuy toog di réunion man en tant que militante simple duma fa toog maintenant soubassement bi ñun ñëpp xam nañ ne Aminata peut-être c'est ma bien te li am pour wax la dëgg situation bi am yëpp maa ngi giñ ci yonent bi sallallahu alayhi man jàpp naa ne neexul Macky Sall muy bàyyi mu mu Aminata de Touré di dem peut-être que sax Aminata neex ko mu dem mais nit dinay dem ba benn moment la koy yóbbu sax du ko xam bon situation bi tel demee na nii mais seules les montagnes ne se retrouvent jamais. mais mais mais mais, euh, mais man jàpp naa ne euh, dañuy bureau assemblée national dañu violer li nga xamante ni moom mooy loi man. Ah, loolu sa xalaat waaw man sama xalaat. waaw franchement mënu la ci tontu. parce que non non non bëgguma nga tontu ma si mais dama la wax man dama ne man. la xam nga sa xalaat man li ma jàpp. Euh, non da nga ne li wax jàpp ak xalaat mooy benn bon man man lu jàpp ma loolu. waaw non xam nga man jàpp naa ne sax euh, coup d'état constitutionnel la. léegi nag yow tu aimes bien les gros mots xam naa ne yow bi ngay jàng journaliste gros mots lañ la jàngal mais man yooyu yëpp ay coup d'état yooyu dafa rëy yooyu coup d'état moom bu ko indi débat coup d'état defar yooyu bàyyil wax yooyu ñun Sénégal vraiment li ngeen ñuy përe diiral yàlla nañu ci yàlla musal ci xormay Seydina Mohamed yàlla bu ma dégg ku d'état ñun ñun yàlla bu ñu dégg ku d'état Abdou Khadre Seck doo ñu ñaanal yàlla njàmm jàmmi réew mii sëñ Muntaxa woote maam Alaaji Malick sëñ Babacar Si Mbay woote ko dégg nga maam kii di sëñ euh, Maahi Ñas demoon ba lu mu tudd Eh, limaa la wala. wuti fa jàmm indi ko. ñu sargal ko yëkkatil ko. bu réew mi bu tàkkee doo leen ci génn de. seetlu ngeen temps yële rek. jamono yee ci ginnaaw rek yàggul réew mi bi mu bëggee tàkk benn journaliste génnul yéen ñëpp a daw laaxatu ji ñaan leen ci réew mi jàmm ndax ngeen mën a def seen émission yi. jàmm ji jàmm ji seen loxo la nekk. si seen loxo la nekk jàmm ci loxo yàlla la nekk ak ñu koy mais dafa am fu nga ko jaarale boo ëllëgee moom président Macky Sall la ñuy laaj ana nan la doon sàmmee réew mi léegi euh, soxna na koy mbubb yow la wax na la woolu yow parce que yow doxoo ci liy sàmmi jàmmi réew mi waaw d'accord euh, jërëjëf euh, soxna Nogoy Mboup muy cadre APR moom la ñu invité tey ci rajo réew mi FM ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu quinze h jotee jàpp 16h léegi soxna Nogoy Mboup il faut que ñu wax ci dossier Ousmane Sonko Adji Sarr gis nañu ne doyen des juges jël na ko yóbbu na ko euh, chambre criminal te Ousmane Sonko ñi mu àndal ak i avocat am ak sénégalais yu baree baree bari jàpp nañu ne ab complot la ab ndëgg sërëx boo xam ne moom la ñu lalal euh, ki nga xam ne mooy Ousmane sonk yow euh, lan moo ci sa xalaat. man affaire privée duma ci wax dama ci jël débat wu bañ ci wax jol dama dama ci formel dama ne muy aji Sarr. muy Ousmane Sonko ñoom ñoo amoon seen place privée bu ñuy dajee man cela ne me concerne pas du sama affaire te sama yoon nekku ci bu demee criminelo bu demul criminelo c'est pa moom problème loolu nañ ko na leen engagé ñoom ñu ko def te ku nekk na nga assumer li nga def kon yow yow yow yow mbir mi eh, yow yaakaar tuuti tuutalee nii mbir moo xamante ni si la Benno Bokk Yaakaar bëgg a ngoy ba Ousmane Sonko jàpp ne si lañ bëgg a jaar pour bañ mu bokk ci élection présidentielle 2024. Macky Sall xam nga ne challenge yi mu jaar moo raw bu Ousmane Sonko ba ñëw tey nekk président de la République. kuy ngoy daf fekk téyewoo ci dara te Macky Sall mi ngi téye ci nguur gi moom lañ ko dénk ba 2024 ngoy mooy ku jàppul kii ngoy ka mooy ki nga xam ne yaa dem defi sa affaire privée ñu ne la na nga dem politiser ko pour nga mën ci génn nga dem di ko politiser te waroon ñëw taxaw ne maa ko def nekk gentleman ne man maa ko def maa génn dem forote wu ji waaye defuma dara. wala maa dem waaye yow may ma jàmm yow eh gis nga bugguma si wax waaye. mais defuma dara la wax. ba pare li ma dégg mu wax man bugguma si wax mais dama ne la li ma dégg li ma dégg yi mu wax bari na bu ñu teg demal nga teg ay vidéo am yëpp. nga dégg ci ba mu demuma fa ak ba ma demee naam woo naa sama sëriñ nee naa ko jigéen a may forote mais yooyu yëpp prétention yooyu yëpp naka la amee ci booy dem forote bay woo sëriñ man may forote ci na ma jigéen ak na ma góor yóbbu sama yoon newu ci damay forote ji gynécologue gynéco gynécologue yi boo demee di nga am gynéco bu góor di nga am gynéco bu jigéen est-ce que da ngay woo sa sëriñ naan ko bu góor bi laa fi fekk wala gynéco bu jigéen bi parce que bi ngay dem yow dangay jàpp na yow danga nga dem pour faju ji kooku faj li nga génn dem sa yoon leneen nekku fi gis nga Sénégal la ñuy waxtaanal foowee xelum sénégalais yi di layam layamee xelum sénégalais yi la war a bàyyi dama ne ku am sa problème privé demal nga la ko yàgg kañ ko séqal. waaw non mais euh, soxna Nogaye Mboup euh, dañu gis ne euh, certificat médical mooy loo xam ne mun a ñàkk ci dara non certificat médical dafa wane ne. sama yoon nekku ci. ci certificat médical bi. c'est pas mon problème du sama affaire. affaire ah. privée du sama affaire sama yoon nekku ci. na dem régler ji problème ak justice sama yoon nekku ci. mais gisoon ne wàllum politique ma ci biir. sama yoon nekku ci sama yoon nekku ci je m'en fous sama nekku ci. waaw jërëjëf euh, soxna Nogaye euh, Mboup seen yoon dossier bi. non euh, man waaw man ma xoolal kaay ma wax la gis nga man sama kenn du ma jox sama dictaawu réponse sama dictaawu engagement ak li may saf ci réew mi ak li ma ciy bañ a saf man maa décidé wax jooju sama yoon nekku ci. d'accord léegi soxna Nogaye. sa yoon nekku ci waaye bis mën naa ñëw sa yoon nekk ci. bu boobaa tamit ma ne sama yoon a ngi ci. waaw mais xam nga lu tey man li ma gis mooy. mooy li nga yebbaat li mu jaasee daan nga ko li mu li ñu bari ñu gis mooy. Ah, parce que loolu sama yoon a nga ca. waaw ah, d'accord léegi xam nga tey Ousmane Sonko tey dafa nekk koo xam ne soo tuddee président Macky Sall ci politique Ousmane Sonko koy tudd léegi yéen. du ma ko tudd moom. waaw no doo ko tudd. mais du ma bu ñëwee ci terrain politique. xam nga am na lu mu ñëw wax ci terrain politique. ñun boobaa dañ koy tontu ci terrain politique. waa non xam nga dafa am loo xam ne rek. dama bëgg dama ne la problème privé. waaw non non mbir mi nekkatul privé.

loolu wàllu woowu. sama yoon nekku si. d'accord xam nga sa yoon nekku si mais nee naa la bis dina ñëw sa yoon nekku si ndax xamul lu ma ne la sama yoon a ngi. waaw la bëgg a wax nag bis bu ngeen jàppee ne. ah amuloo beneen question. non non damay dagg pour ma wax man sax tontoo. waaw mais bu ma ma tontoo parce que nee naa la sama xam nga say moo tax nag maandoo gi bëgg ñàkk ci réew mi de. waaw man dama bëgg a maandu ci loolu. waaw d'accord waaw léegi aw ma droit ma ne dama ci maandu. waaw d'accord na xam nga maanu nga ci. waaye bu ba laajaat leneen waaw d'accord non laajuma la ci li may wax nii euh, commentaire bu may def la. bu ci tontu mais dama ne. yow waroo ko un journaliste ne doit pas commenter. waaw léegi dama ne soxna Ndogoye. tu poses des questions on te nga jàll ci leneen. waa non xam non waaw léegi may ma rek léegi dama la bëgg wax na la dama gis ñu baree bare ci biir. léegi jox ma micro bi ma poser la question. waaw dama gis benn bokk yaakaar. Ah. ñoom ñu jàpp ne. mën nañoo mooy si dossier bi ba tere Ousmane Sonko mu bokk ci élection man ma jàpp ne. bu ngeen ko jéemee tere mu bokk ci ay élection Sénégal mën naa am jafe-jafe loolu rek laa bëgg wax loolu laa jo loolu laa njort man. élection. kenn mënu ko tere kenn. képp kuy nekk bëgg a nekk candidat yaay dem ca conseil constitutionnel nga déposer sa candidature ñoom ñoo lay tontu ndax mën nga nekk candidat wala mën a nekk candidat. xam nga mbir soo koy waxtaanee danga koy teg nee naa la ci xam-xam réew mi ku mu neex nga bind sa candidature dem yóbbu ko conseil constitutionnel xam nga lan mooy problème ndax di nga dem wala doo dem foofu la coow li nekk su fekkonte ne loolu ngay wax yéen a ngi nii bëgg a xañ Macky Sall ne ko bu mu nekk candidat est-ce que seen dictat bi ngeen teg. pour ne Macky Sall warul déposé déposer candidature delloo naa la question bi voilà problème réew mi maanaam nee naa la li ngeen bëgg teg ci système mu sénégalais yi mooy benn xalaat la ñuy teg léegi ñëpp dañ ko war a appliquer. lu yàlla amul yéen mënu leen ko am. ñan yéen yéen. yéen koy wax man sax man man bokk non yow yaa ma indil man di ma laaj ma ne la nekk sama yoon nekku ci nga ne ma indil ma bennoo bokk yaakaar nee nañu. Benno Bokk Yaakaar c'est kii et kii nee ma diw ak diw ak diw yow nee naa la ne xam nga yaa ngi wax ne dañu bëgg tere tere Ousmane Sonko waa léegi Macky Sall yéen bëggu leen ko tere mu nekk candidat. mais président Macky Sall dafa warul bokk ci élection waaw mais loolu buñ ci yeggee nee naa la xam nga conseil constitutionnel laa la tontu ne dina ko dina ko dina ko leeral. waaw waaye léegi ñun neewuñu leen Sonko du nekk candidat na dem déposer conseil constitutionnel. waaw d'accord léegi na dem déposer conseil constitutionnel. Mhm. moom mooy conseil constitutionnel mooy wax làmb ji bi ñu peser pour borom poids yi ñii ak ñii ñoo war a ànd ñii ñii ak ñii ñoo war a ànd. d'accord jërëjëf euh, soxna Nogaye léegi ñu bàyyi mbir moom wax léegi ci benn ndax mi waxtu yi ma ngi jeex euh, grève Euh, transporteurs yi fan yi grève woon nañ bàyyi nañ seen grève bi pour euh, waxtaan nañu ak sëriñ bi gis nañu accident yu bëree bëri euh, amoon ci yow lan moo ci saxalaat en tant que sénégalais ak yan mesure nga jàpp ne waroon nañ ko mën a jël waaw loolu moom dama la ci sawar a tontu parce que man xaalisu transport lañ ma ngénte man sama papa transporteur la woon alaaji soose boobu moo mu jur transport ak accident yàgg na waaye ni tey transport deme dafa metti xam nga d'abord xale bu ndaw bu amul vingt-deux ans di transporter lu ëpp cent personnes ak ay bagages yoo xam ne ëpp na mille kilo loolu dafa jaaduwul ci Sénégal moo xam nag ci transporteurs yi ñoom ñooy jël seen résolution pour xam ban âge moo war a dawal poids lour bi ak ki koy dawal ci yan anam la ko war a dawale ak superviseur buy ànd ak moom nguur gi aussi war nañu dugal ay stratégie yoo xamante ne ni transport bi am na loo xam ne soo ko defee muy infraction soo génnee benn dëkk bi nga jógee balaa ngay dugg beneen dëkk dañ la gaare parce que war nañu teg sécurité bu yokk ci kaw tali bi war nañu aussi sécuriser transporteurs yi maanaam yombal leen ni ñu mën a amee ay oto yu baax ci njëg gu yomb pour ñu mën a dawal transport bi mu dem donc bari na li ma xam man ci transport parce que man état bi daf see laaj non état état dafa am nee la nee la daf fi yàgg. waaye loo gis continuité la réparation la refaire la. état yàgg naa dugal man par exemple dëkk yi ma xam yu mag yëpp dañuy def permis à point mais ñu ne fii Sénégal bu ñu dugalee permis à point musiba am mais même bu ñu fekkante ne dañ koy bañ pour indi chômage wala bañ nit ñi ñàkk seen liggéey war nañu jëng liggéey boobu ndax bakken du lu ñuy caaxaanee. kon am nga sa xalaat bu bëri. man de bés bu ñu ma woowee am naa si xalaat bu bëri parce que man mii di wax ak yow nee naa la doomu transporteur laa ba pare damaa def transport vingt cinq laay def transport booba ba may njëkk am taxi 505 laa am ma mujj jënd Carina un am Carina 2 ba bi may tukki laa def naa deux ans après ma doog a jaay samay oto kon man transport bi am na lu ma ci xam. am na lu ma ci xam ci oto yoo xam ne sax na muy dawee seen durée de vie yàgg na waroon na dañ mais am na yeneen i pexe moo tax ma ne il faut que mu am waxtaan bu yaatoo yaatoo yootu ak yombalante ci suñu biir. mais est-ce dañ ko jox ay nit ñoo xam ne euh, xamuñu transport. non xam nga transport bi ñun ban côté xam nga transport daanaka ñoom seen milieu ñoo ko yoral seen bopp dañu am associ dañu organiser ñu am association des transporteurs maa ngi rappelé wu Bamba Sourang ko yoroon après sama papa yor ko ndar. yaa ngi dégg am na ñu par exemple am na yeneen nit yoo xam ne tey ñoom ñoo ko yor ay ñam magay xam naa ci ñu baree baree bare dañu nekk ay association des transporteur am seen ay syndicat am seen yeneen ak yeneen ba pare transport bi dafa gën a yaatu dafa gën a dox dafa gën a màgg. mais état bi defarul ay tali aussi. kon fan la ñuy jaar dañuy daw ci ngelaw li. mais tali yu yàgg yu xat yi. yow déggal ngay ree sa bopp boo mënoon bu lii bu ñu ko mënoon vidéo da ngay laaj sa question di ko ree du ma la tontu. non mais mooy tali yokkat yi. waaw mais sama ndox yi mais eggaleel eggaleel léegi la mais eggaleel moom li mu doon am solo. important da koy bàyyi. waaw d'accord waxal léegi xam nga xam nga damay wax ne man du ma wax lu ma xamul. waaw d'accord léegi waxal. non fa laa yem nañ bàyyi ba beneen. <laughs> waaw jërëjëf ñu ngi la gërëm. jërëjëf Cheikh Abdou maa ngi lay gërëm bu baax yow naqari nga deret de. non naqari wu ma deret moo bëgg nit ñi naqari deret te nag dafa am loo xam ne nee naa euh, boo dee nitu dëgg rek mënatoo ko seetaan soit da ngay nekk naaféq nga noppi wala nga ragal wala nga wax dëgg ñu rey la taman je préfère ma wax dëgg ñu rey ma. d'accord jërëjëf euh, soxna Nogaye Mboup mbokk yi moom la ñu invité woon moom mu bokk APR bokk ci cadre yi nekk responsable politique euh, ci Yoff euh, moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo mu nekk ci wàllu machine bi mbokk ñu leen di jox di daje samedi bii di ñëw incha allah bu 15 jotee jàpp 16h jërë ngeen jëf jàmm ak